Mhm. Lamine li xewoon ca mbuur nga gisoon waa ji génne di tiire. dana amaat bi yoon xam fan lay jëwee. fan ci politique mel la ñu nag nemmeeku foofe ca Sakal ginnaaw ba fa premier ministre Amadou Ba wàccee niki samedi bi ngir nag amal lii di inauguration du centre de santé bi nekk foofe nag ca gox bu Sakal la ab agent de sécurité wala sax ab agent brigade d'intervention polyvalente gi ñu xam ci bip la nag bàyyi ab ay tiir ci kanamu premier ministre bi di Amadou Ba ca noonu nag moom Euh, agent bi boobile dafa rek wax ni euh, ca biir inauguration ba dafa nag seetlu woon ay agent GIGN yi nga xamante ni nag dañoo euh, changé woon seenu xar kanam ngir rek daal di ko encercler te xamuloon ana lan moo waral lu ni mel moom mi nga xamante ni ab agent de sécurité la woon rek ngir ki nga xamante ni moo di ministre de la santé di Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci noonee nag la daal di seetlu ay agent agent GIGN ñu daal di ko encercler euh, ngir nag euh, am lu ñu ko def euh, moom nag ci la xelam ñaw mu daal di génne ab fetelam ngir rek mën a tirer ci suuf ngir su ko defee rek ñooñee nag wala sax agent yooyee daal di ko nag may jàmm loole nag ginnaaw ba mu ko defee ñenn ci ñi nga xamante ne ni ñoo teewee woon boobu la inauguration dañoo nag am ci ay gaañu gaañu ginnaaw ba mu tiiree lam góogale loolee nag di wone li nga xamante ni moo di. xam ni nemmeeku nañ ko euh, ci côté Amadou Ba premier ministre waaye tamit candidat la mouvance euh, présidentielle moom nag boobu la incendie euh, mi ngi am ca inauguration du centre de. santé de Sakal fa nga xam ne fa la premier ministre euh, nekkoon ak ki nga xam ne mooy docteur Marie Khemesse Ndiaye ministre de la santé moom itamit euh, ma nga fa woon waaye nag dañoo gis ne euh, boobilee mbir nag ci ab xuloo la daal di mujjee ba arme à feu daal di fay génn mbir ma nag ma ngay door ci altercation maanaam xuloo bi nga xam ne amoon na ci membre de la garde rapprochée Euh, du premier ministre Amadou euh, Ba moment bi nga xam ne nag docteur Marie Khemesse Ndiaye euh, ministre de la santé ma nga doon dem ca tribune officielle ba ginnaaw ba mu jugee nag di visiter de centre de santé son garde corps nag ñi nga xam ne ñoom ñooy garde corps Amadou Ba dañ koo daal di arrêté loolu nag mënoon na nekk ab xuloo bu ndaw mais nag rapidement rek dafa daal di viré benn ci benn affrontement la ñu daal di nemmeeku ci ñaari parti ku nekk rek dafa daal di bañ ne du séddewu ci la tension bi nag daal di euh, monté mbir mi nag daal di jël beneen ampleur boo xam ne au début amu ko waaye nag ñu gis ne garde rapproché wu ki nga xam ne moom mooy ministre de la santé dañoo gis ne benn ci garde nag beneen ci garde ki nga xam ne moom mooy ci garde corps ki nga xam ne moom mooy premier ministre Amadou Ba ñoom naar nag dañoo daal di jàkkaarloo maanaam ñaari parti yooyu ku nekk rek kenn ci garde corps yi dañoo daal di nemmeeku na dañoo daal di jàkkaarloo waaye nag gis nañ ne euh, garde corps ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba ñoo daal di wër euh, kookile bañ ko wëree nag ci la mbir ya daal di tàmbali ñu jàpp ko nag di ko dóor ci la euh, garde corps ki nga xam ne mooy Marie Khemesse Ngom Ndiaye daal di génnee arme à daal di tiire ci suuf ci ñaari coup de la daal di euh, def tiré ko ci euh, suuf nag léegi daal di créer li nga xam ne moom mooy ab panique euh, générale. ca boobu jamono nag moom la premier ministre ma nga daal di taxaw fa mu taxaw waaye nag yeneen nit ña nga xam ne ña nga fa woon dañoo daal di quitté les lieux maanaam dañoo daal di génn foofu leen nag daal di provoqué li nga xam ne moom moom ab xëccoo am na fa ba gis nañ